auzu billah bismillah alhamdulillah wa salawaatuhu wa salaamu ala rasulihi wa alihi wa wa xadimihi wa ummati wajal kalaami rasida wa mursida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi siyaare kilifa yëpp tey siyaare sama bokk taalibe yi tey ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér bi li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi yëpp mu àggale ko te ñu nuyu itam kilifa yi nga xam ne ñoo jiite kuréel gi di Touba ca kanam ñu ca tuddee alaaji sëriñ Tàkko ak Cheikh Abibullahi Mbacke sëriñ Abdul Ahad sëriñ Abibu le président sëriñ Abdul Fatah Gueye ak ci soxna yi bu tuddee seen jiit dana mën a yóbbaale ñëpp muy soxna Bintu Mbacke mu sëriñ Abibu di siyaare bokki taalibe yëpp yi nekk ci réew mi ak yi nekk ci bitim réew tey jii nag ñu ñëwoon ngir defal leen rapport activité annuel de la commission sociale et solidarité maanaam Touba Ca Kanam dafa baaxoo at bu jot boo dem commission yi mamoon ñu ñëw ngir gaaral bokk yi nga xam ne ñoom ci doon dugal seeni jëf li nga xam ne moom lañ jot a def ci at mi ak li nga xam ne moom lañ jot am laataa loolu nag li ñuy njëkk a def mooy jéem na a présenter nag naka la commission sociale tëdde commission sociale nag ci wolof rek mooy dimbalante ak jàppalante te yàlla rek tax ñu mën koo wax ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi wala sax al infaq fi sabilillah ci ñi nga xam ne nii xëy na danañ mën a dégg la wax waxin woowu mu doon lu am solo loo xam ne nii li ci sunu borom ñaaxee ci biir alxuraan kenn xamul nu mu toll yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit fàttalee na ko ay yoon yoon Serigne Touba itam fàttalee na ko rawatina ci téeram bii nga xam ne moom lañuy wax Masaalikul Jinaan ba beral ko ab bunt boo xam ne nii lam ci wax ci njëlbeen gi rek doy na sëkk amat tasadduqu mahal infaqi fa jamaal xayraat bi ittifaaxi sarxe te yàlla tax ak dundale sa alal ci yoonu yàlla mbooleem yiw yi nga xam ne nii nit dana ko sàkku fii ci àdduna ci àllaaxira yëpp mu ngi ci ñaar yooyu commission bi nag ni nga xam ne noonu lañ ko tëgge maanaam niñ ko structuré mooy dañoo wut koo xam ne ni moom lañ jiital ñu di koy wax président muy man mi nga xam ne maa nekk ci kàddu gi te ñu dénk ni ma mbir mi wut kun toftal ci moom ñu koy woowee vice président wut koo xam ne tamit mooy secrétaire boo xam ne mooy secrétaire commission bi nga xam ne lépp lu fi rot te ñu war koo bind war koo yaxal moom moo koy def wut tamit am modérateur koo xam ne ni bu ñuy def moom mooy joxe kàddu yi te moo koy limité waaye wut koo xam ne ni moom lañ dénk ngir mu yaatal liggéey bi muy kon chargé wàllu communication bi wut tamit koo xam ne mooy secretaire financier bi nga xam ne bépp koppar boo xam ne day dugg si ci moom lay jaar bépp koppar boo xam ne mooy génn tamit moom mooy def pièce de caisse bi nga xam ne moo ko war a génne kon lii mooy membre du bureau yi teewut itam nag commission sociale moom membre yi dañ ko illimité la maanaam amul dim bu yem waaye ci biir illimité boobu dañ cee tànnaat ay nit ñoo xam ne nii bureau exécutif bu Touba ci kanam rawatina ci ñaari njiir yi muy at adjoint eh, responsable moral bi ak ki nga xam ne ni mooy président Touba ci kanam ak le secrétaire général bu Touba ci kanam ak administrateur bi ak lenn ci membre bi exécutif yi ñoom lañ jël yokkaat ci yeneen nit ñoo xam ne ni ñeneen ñi ngi ci biir réew bi ñeneen ñi ngi ci bitim réew ngir ñu mën a ànd du saytu liggéey bi ngir mu gën a ñoom ngir bépp cas boo xam ne ñëw na dañ koy dugal foofa la ëpp ca bokk ya fa nekk lañ wax loolu la ñuy wëyal li nga xam ne nii moom la ñuy def nag lépp dañ koo teg ci eh, ci benn base de données boo xam ne dañ ko établir mboolem cas yi nga xam ne dañ koo am foofa lañ ko enregistré xam nga xam ne danañ xam nit ki xam fam dëkk xam mbir mu nekk fam toll ci moom activité yi nga xam ne moom la ñuy def nag bokk na ca mooy taxawu ñi nga xam ne nii dañoo am jafe ci wàllu wér yaram commission sociale bokk na ci li muy taxawu te mënaluñ ko seen bopp bokk na ci li nga xam ne moom day taxaw itam mooy ñi nga xam ne dañoo wér waaye nag dañoo am jafe-jafe ci seen wàllu dundin ñàkku dund wala yu deme noonu ci biir jëf yi muy jëf tamit am na loo xam ne da koy baaxoo yóbbu ci daari kaamil ji nga xam ne moo nekk jumaa ji ci weer wu nekk dippi ba nga xamee ne kuréel gi taxaw na ba léegi bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy def itam mooy danañ taxawal ay bis yoo xam ne nii lim bi nga xam ne dañ ko daan jël ci weer wu nekk di leen jàppale su boobaa dañ koy gën a ful ci jëm ci ci koor gi ñu koy wax social ramadan ak ci korité gi ñu koy wax social korité ak ci tabaski gi ñu koy wax social tabaski ba ci màggal gi sax ñu koy wax social màggal loolu mooy yi nga xam ne nii moom la commission sociale di yëngu ci at mi mu am ci loo xam ne nii nag jamono ji nekk ñoo ngi ci eh, am ci loo xam ne nii dañ ko wutal ay bis rapport bii nga xam ne moom lay wax nii nag mooy li nga xam ne ni moom lañ def ci at mi yëpp waaye ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir Touba ci kanam ñu ci bëri réerewul ne commission sociale moom chaque mois wala weer wu dee dana def ab rapport boo xam ne nii képp koo xam ne dugal nga ci sa dërëm dana def ab tableau boo xam ne dana bind sa bind la nga ci dugal ak fa nga ko jaarale bu weer wi jeexee itam danañ def mbooleem li fi mu jotoon dugg ñaata la ak fañ ko def ci ñi ñaata nit lañ ci faj ñaata nit lañ ci dimbali ñaata nit ñaata lañ ci yóbbu ci daari kaamil ak yu demee noonu kon ñu ñëw ci njëlbeenuk at mi bi muy tàmbali comme ni ñu ko bari ñu bari niñ ko xamee dafa tolloo woon ak suñu borom wàcc am natt boo xam ne nii muy ñu di ko wax mbas mi nga xam ne nii mooy Covid bi ci jamono boobu nag ñi nga xam ne ñoo yor wàllu kër docteur dañoo xamle woon ne ab jaxasoo moo tax visite de terrain yi nga xam ne moom lañu daan def ci ñi nga xam ne dañoo wéradi ngir di leen taxawu ci am paj dañ koo dakkalinu woon kon nga xam ne juróom benn weer yu njëkk yëpp amu ci kenn koo xam ne nii dañ ko doon dem di ko xooli ngir dafa wàllu tawat yooyu lu may nag koo xam ne dafa wéradi waaye wàllu ordonnance day yittewoo wala sax xamoon nañ tawatam ba xam la koy saafara ñu yónnee ko dara ngir mu mën caa jàpp ci tal njëlbéenu weer wi nag liñ ci jot def ci xaalis mi ngi toll ci deux millions trois cent cinquante mille neuf cent deux millions trois cent cinquante mille neuf cent cinquante loolu lañ jàppale woon ñi nga xam ne ñoom ci doon sàkku ay ndimbal bi nga xamee ne Covid bi tàmbalee na tamit dañ ko defoon ñaari xaaj muy am na ñoo xam ne nii eh, jamono boobu dañoo tëj frontières yi tëj régions yi ba kenn mënut a wu ba nit ñi am na ñoo xam ne amoon nañ jafe-jafe ci wàllu dundin waaye ci biir loolu tamit am na ñoo xam ne nii tawat ji dañ dina tudd di tudd di ko tudd tudd seen i kër te jamono jooju dañoo waxoon ne képp koo xam ne loolu daan nan la dañ lay ber. maanaam def la li ñuy wax mettre la en quarantaine nga xam ne doo sañ a génn di wut loo yëngu ci kaw loolu nag commission sociale Touba ci kanam jàppale woon na ci ay nit yoo xam ne nii toll na ci cent cinquante huit personnes téeméeri nit ak juróom fukk ak juróom-ñett lim bi ñu leen jàppale woon ci xaalis nag ci lu jëm ci ceeb ak xaalis mi ngi toll ci cinq millions six cent dix mille cinq cent cinq millions six cent dix sept mille bi nga xamee ne tamit kër yooyu ñu quarantaine am na Cheikh Mamadou a yàlla na fi yàgg loolu te wér dafa amoon taxawaay bu am solo boo xam ne def na ko ci biir réew mépp nga xam ne xaajalewu ci ku doon jullit ak ku doonul jullit ku am murit ak ku doonul murit yëkkati woon lu tolloog ñaari téeméeri million joxe ko dimbalee ko ñi nga xam ne ñoo jiite réew mi waaye yëkkati ab dund tamit séddale ko ci biir dëkk bi séddale séddale ay taraanga tey ba taraanga yi lawoon na fu bëree bëri ci dëkk bi ak ci réew mi mu wowoon nag kilifa Touba Ca Kanam amoon yéene yëkkati ab lim ci ay koppar jox leen ko ngir ñu defal ko liggéey boobu ngir kër yi nga xam ne dañ leen a ber te amuñu sañ-sañu génn jaxasoog mbooloo mi ñu am lu ñuy jëfandikoo ci seen biir kër ci loolu nag kilifa yi gis ne ñoom ak alal jën yor yëpp sëriñ bi moo ko moom ñu waxaat ne ñu sàkku ci sëriñ bi ngir liggéey boobu mu sant leen ko nga xam ne du jaar sëriñ bi di génne dara sëriñ bi nag dénk ko euh, kilifa yi kilifa yi tamit jëloon ab comité boo xam ne moom lañ ko dénk muy commission sociale waaye ñu jiital ci le secrétaire général bu Touba ci kanam mu def ci liggéey bu am solo kër yi ni ñu ko doon defee mooy kër gu nekk dañuy seet dañ dafa am benn commission bu ñu tijji woon boo xam ne nii ñi nga xam ne ñoo yor wàllum faj ci biir région bi rawatina ci biir dëkk bi mooy docteur Soxna Ndeye Mag Ndeye màggat Diop moo ñu boole woon ak ñaari fajkat ñoo xam ne nii jamono ju nekk ñoo ñuy yónnee bis bi ñi nga xam ne moo fi am ay cas positif bu ñu ko yónnee nag dañuy nemmeeku kër googu ba xam ñaata nit ñoo fa dëkk. ci la ñuy xamee nag ñaata lu leen war a jox dépasse ci ci fukki fan ak jur ñeent yi nga xam ne moom lañu war a toog muy quatorze jours yi waaye nag Touba Ca Kanam waat ci yeneen ñaari fan yoo xam ne nii ginnaaw bu seen quarantaine matee fan yooyu dañ koy noppalu muy seize jours loolu nag ay kit lañ ko defoon den séddale lu mel na ceeb diwlin ak sucre ak euh, eau de sewel ak madaar ak yu ni mel boole kook enveloppe boo xam ne nag moo koy gunge loolu lañ ca defoon lépp mu ngi toll ci douze millions six cent soixante-sept mille six cent douze million six cent soixante-sept mille six cent cinquante kon buñ xoolee li nga xam ne ni moom ñoo ci jot jariñu kër yi nga xam ne jot na leen quarantaine nga xam ne Touba Ca Kanam dugal na fa loxoom commission sociale ñi ngi toll ci cent trente-deux famille téeméeri jaboot ak fanweer ak ñaar loolu nag ñi nga xam ne ni ñoo ci jot a jariñu ci ay nit ndax léegi li ma waxoon ay famille la waaye li ñu ci jot jariñu ay nit ñi ngi toll ci mille quatre cent soixante-cinq personnes junni nit ak ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom boo ko cent booleeg 158 yi nga xam ne ni moom laa waxoon léegi nga xam ne ñoom ak wér dalu leen kon day mel ne ci biir Covid bi ci juróom benn weer yu njëkk yi taxawu nañ lu tolloog 1623 personnes junni nit ak juróom benn téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett. bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci événement yi nga xam ne nii commission sociale baaxoon na ko taxawu ci at mi ñu njëkkee li nga xam ne mooy korite gi korite gi nag bu daan dënmal si dañ daan xool ne demande bi day gën a yokk ci askan wi moo tax ñu daan wut bis boo xam ne nii nit ñi nga xam ne ñoo lañ daan jàppale dañuy yokk lim ba ci jiital ci benn recensement boo xam ne nii dañ koy def seet quartier yi nga xam ne ñoo gën a sori ci dëkk bi ñu koy woowee ay sancaan ñu jël fa ay nit waaye jëlaale ay nit ci biir dëkk bi buñ ko boolee nag ñoom lañ daan jox ndimbal yi moom ngeen di gis ci image yi muy loolu loolu ñu daan er-, organiser ci mbaarum Daaru Xuddoos ren jii nag di 2020 li nga xam ne moom lañ ci jot a am ci xaalis bu teew nga xam ne espèce la mu ngi tolloon ci 31 millions 358 mille 969 31 millions 358 mille 969 li nga xam ne moom lañ ci amoon ci ab dund nga xam ne li lu demee ne ceeb wala siikar wala yu demee noonu nga xam ne jamono ju nekk Cheikh Mamadou Mountakha moo ciy jiital loxoom loolu buñ ko xaymaa ci xaalis mi ngi tolloon ci 5 millions 417 mille 500 cinq millions quatre cent dix sept mille cinq cent bu ñu xoolee nature bi ak li ñu amoon ci espèce yëpp bu ñu ko boolee ci xaalis mi ngi tolloon ci trente six millions sept cent soixante seize mille quatre cent soixante neuf trente millions sept cent soixante seize mille soixante mille quatre cent soixante neuf loolu mooy li nga xam ne moom la amoon ci bis boobu ñu baaxoo def ci at mu nekk ñu di ko tuddee social ramadan ginnaaw bu loolu duggee nag il faut ñu wane tamit fan la génnaate li nga xam ne moom lañ jot génnewaat ci bis bi mi ngi doon vingt six vingt six millions neuf cent quatre vingt et un mille cent yooyu boo ko booleeg cinq millions quatre cent dix sept mille mi ngi lay jox trente deux millions trois cent quatre vingt dix neuf mille. trente deux millions trois cent quatre vingt dix neuf mille mooy li nga xam ne moom lañ jot a def ci bis boobu ñu tuddee social Ramadan. kon day mel ne liñ limoon 36 millions 776 469 yooyu boo ci génnee 32 millions 399 mille day mel ne dana am 3 millions et quelques yu mu des 3 millions et quelques yooyu nag dañ ko delloowaatoon ci compte commission sociale ngir ñu wan cee wëyal ñi nga xam ne ni ñu ngi leen di faj ci at jamono ju nekk. ci biir korite googu tamit ñu ci doon séddale mooy ceeb dañ ci doon séddale ak siigar ak 2000 francs yoo xam ne mooy transporté liñ la jox. ak séddale woon nañ ci tamit ay fauteuil roulant dana ñëw ci kanam séddale woon nañ ci ay yére yoo xam ne nii tamit lim ba lim bu takk la waaye séddale nañ ci woon tamit ay tàndarma biñ jugee ci loolu korite gi moo ci topp korite gi tamit dañoo defaat beneen recensement boo xam ne nii dañoo dem ci quartier yi gën a sori waaye boole ko waa ñu nekk ci biir dëkk bi liñ ci jotoon a jël ci ay nit mu ngi toll ci juróomi téeméeri nit lañ ci jotoon a bu dee ci social ramadan bi ñu ngi ci jotoon a jël ëpp na mille quatre cent soixante cinq personnes la maanaam junni nit ak ñeenti téeméeri lu topp bu dee ci korite gi nag jëloon nañ ci lu tollook juróomi téeméer nit yoo xam ne nii deux cent quatre vingt cinq personnes yëpp ñu ngi ko jëlee woon ci sancaan ci des lañ jëlee ci biir dëkk bi mooy cent trente sept personnes yu njëkk a jël ak cinquante huit yoo xam ne nii ginnaaw bu yëfi yi tàmbalee la ay xéewal ñëwaat ñu yokkaat leen ci loolu lépp lañ ci def ci xaalis ñu di ko tudde social korite mi ngi doon dix millions. sept cent soixante mille dix million sept cent soixante mille bu jugee ci loolu bis bi nga xam ne ni moom lañ daan wax social tabaski te mu doon sunna soo xam ne ni sayyidina Ibrahima alayhi salaam ci moom la booboo wa man yarxab an millati Ibrahima illa man safiha nafsa bokk na ca sunna ya yañuy sopp ca bis ba nag mooy sol yére yu wees ba taxoon na at yi weesu yëpp buy dënmal si ni nga xamee ne am na ñu nañu mënal seen bopp waaye amuñu amun nañu mënalul seen bopp dañ daan organiser ab collecte boo xam ne ay yére lay doon yoo xam ne ci biir réew mi ak ci régions yi ak ci bitim réew lay tukkee bu ñëwee nag ñu séddale ko mu doon yére yu yees yoo xam ne yu am qualité la bu ñëwee ñu séddale ko ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw li nga xam ne moom lañ jot am ci ay yére ren ji ci bisu tabaski bi mu ngi doon treize mille cent trente neuf mille cent trente neuf treize mille vêtements cent trente neuf maanaam fukki junni ak ñeent ak ñeenti junni. ak téeméer ak fanweer juróom-ñeent ci ay yére ci biir yére yooyu nag am na ci trente trente trois cent dix sept folaar mooy yi ni muro muro amoon nañ tamit dix neuf sac à main muy sac yi nga xam jigéen ñi danañ ko yor amoon nañ tamit juróom-ñetti mbaxana amoon nañ tamit ci yére jigéen yére jigéen yi amoon nañ ci douze mille deux cent quarante six douze mille deux cent quarante six fukki junne ak ñaar ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn yére jigéen ci yére góor yi nga xam ne mooy góor ñu mag ñi. amoon nañ ci lu tolloog 382 ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci yëre yi xale yi xale yi xale yu ndaw yi moo xam góor la moo xam jigéen la amoon nañ ci 511 juróomi téeméeri yëre ak fukk ak benn ci ay dàll amoon nañ ci 192 dàll. amoon na tamit ay yëre yoo xam ne dañ ay tiisaloo yoo xam ne ñëwaguñ ko woon ñu séddale woon ko association téer yi loolu tolloon na ci 105 yëre ñu ngi santaale bu baax mbooleem ñi nga xam ne jàppoon nañ ci. rawatina association bi nga xam ne moo nekk ci fiir ci biir Touba ak ci Mbàkke ak mboolem mi nga xam ne dugaloon nañu seen loxo amoon na tamit ay yére yoo xam ne nii yu bees la yuñ jëndoon yoo xam ne kenn ñëwu ko woon yu ëpp ñetti téeméeri ñu séddale woon ko ci askan wi amoon na tamit ay takkaay yuñ amoon amoon na ay daraa muy ñu koy wax darab yuñ amoon amoon na ay marmette amoon nañ ay eau de sevel amoon na tamit ñeenti xar yoo xam ne nii amoon nañ ko waaye yooyu yëpp delloowaat nañ ko ci askan wi du ñàkk ngeen gis ko ci yenn ci vidéo yi ku wax tabaski tamit wax am xar moo tax bi muy ñëw tamit ren te tolloog mbas mi dañoo waxoon ne bu ginnaaw mënuñoo jënd ay xar di ko dajale nañ fexe ba wut ay enveloppe yoo xam ne nii ku ci nekk rek danañ fexe ba jox la loo xam ne nii bu matutum xar tamit dana ci sori enveloppe yoo mi ngi tàmbalee woon ci cinquante am na ñu ko ëpp loolu nag jotoon nañ cee dimbali lu tolloog deux cent quatre-vingt-sept personnes ñaari téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar lañ ca jot a def ci xaalis mi ngi doon quatorze millions sept cent quatre-vingt mille quatorze million sept cent quatre-vingt mille kon loolu mooy li defoon ci social tabaski bi am na tamit ay logement yoo xam ne nii jotoon nañ ko def ren eh, li ko indi woon nag mooy bokkutoon ci programme bi nga xam ne social nasoon na ko ci 2020 bi waaye recensement bi nga xam ne moom lañu doon def ci Korité gi ci lañ dem ci benn quartier boo xam ne ña fa dëkk rawatina ay soxna seen dëkk waaye doyoon na waar lool te mënuñu leen woon a bàyyi noonu moo taxoon ñu defoon ci ab jaayante boo xam ne nii bokk taalibe yu nekk Italie ñoo njëkk a dugal seen loxo. ñi soxna su njëkk si nag lañ njëkk a defar ab batiment ab tabaxam ñu defal ko néeg defal ko toilette defal ko mbaar xëccal ko mu ndox la ca jotoon dem ci xaalis mu ngi doon huit cent quatre-vingt-onze mille trois cent cinquante. huit cent quatre-vingt-onze mille trois cinquante waaye booba nag maçon yi nga xam ne ñoo ñu ko doon liggéeyal lañ leen doon fay moo tax mu àgg foofu li bi. séerul ba ëpp mooy li ci ëpp tamit daa am ñu ko jaayante ndax euh, bu doon seet am néeg rek boo ko bëggoon defar ci normal dana ëpp loolu ñaareelu néeg bi nga xam ne moom lañ fa defaraatoon mi ngi doonoon sept cent mille neuf cent sept cent trois cent lañ ci jot a def ci néeg boo xam ne nii carrelé nañ ko defal ca buntu ay fer def ca fenêtre def ca toilette xëcc fam dox waaye loolu tamit ñu ngi ciy profité waale di sant daayira bi nga xam ne moom la ñuy wax Matlabul Fawzayni te ñuy ay ouvrier yoo xam ne nii ay menuisier ay ay eh, ferrailleur ña nga ca ay mason ña nga ca ñoom jamono juñ amee ab liggéey rek ñoom ñoo ñëw jàppale ñu nga xam ne duñ leen fay dara dañ koy def ngir jëmmi sëriñ bi di sant tamit ay mason yoo xam ne nii ku ñuy wax Sidi liggéey moo leen jiite ñoom tamit ngi def ci taxawaay bu am solo boo xam ne nii ñoom tamit daawuñu sàkku ñu fay leen ci benn dërëm def nañ fa tamit balancement ndox boo xam ne nii jëlee nañ ko ci 150 mètres xëcc ko def fa robinet mbedd ak yeneen robinet yoo xam ne ci kër yi lañ ko dugal ñi nga xam ne aajo woon nañ ko loolu tamit ñu ngi ciy profité waale di sant daayira plombier yi ci njiital ku ñuy wax ab Abdou Diagne ñenn ñi di ko wax Baye Diagne ñoom tamit dañ doon ñëw di liggéey te kenn daw leen fay dara lu fayu sëriñ bi rek lañ ci doon séntu ñi ngi sant tamit ku ñuy wax sëriñ Cheikh Fall moom ab pentrikat la du mag waaye da doon def bépp tabax boo xam ne pare nañ ko rek mu ñëw jaayante ko pentri ko kon ñu ngi ko ci sant bu baax di sant mboolem ñi nga xam ne ñoo ci tàbbaloon seen loxo rawatina bokk taalib bi nga xam ne moo jaayante woon mboolem kara yi nga xam ne loolu nag fukki kër lañ fa jëloon ñaari kër yi moo pare mu des nag juróom kër yoo xam ne ña nga ca am xam naa ci jamono jii di ñëw da ngeen gis ne dana àgg am na ci ci kilifa yi koo xam ne sax sasoon a génn kër goo xam ne moom rek moo koy defar li ci des nag ci jaayante bi la dugaat lañ ca jot def mu ñaari kër ya pare ak kër yi nga xam ne ñoo nga ca mu ngi toll ci trois millions deux cent quatre vingt six mille huit cent cinquante trois millions deux cent quatre vingt six mille huit cent cinquante. buñ jógee ci loolu ñu ngi ñëw ci màggal gi màggal gi nga xam ne sëriñ bi moo waxoon ne képp koo xam ne mbégteem sa mbégte la bu ñëwatee na nga ca na nga ko ci santale yàlla te mu waxoon ne sunu borom nanga ma defal sama tukki bii mu kawe sama njort waaye na nga def sama ñibbisi gii mu doon yiw woo xam ne du jeex ba mukk nanga ma defal sama ñibbisi gi mu doon mbégte ci sama waa kër waaye na doon mbégte ci mboolem ku gëm waaye na doon mbégte ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ij'al masiri fawqa sanni yaa karim waj'al rujuhi xayra ajrin laa yarim ij'al rujuhi li duyoori busra lil muminina bil bashiril busra moo taxoon tamit commission sociale wax ne dana ci jàpp bu baax a baax ba ñi nga xam ne ñoo ngi màggal ñëpp ñu yëg ne dugal nañ ci suñu loolu nag ñu ngi ci sant commité directeur bu Touba ci kanam ak mboolem kuréel yi Touba ci kanam yi ndax def nañ ci ak jàppandal gu am solo moo tax ñu génne woon ab lim jëloon ci lu tolloog 37 personnes yoo xam ne nii fanweer ak ñeent yi ay toilettes lañ soxla woon ñett ñi wala ñaari yi ñi ngi soxla woon ay néeg ak toilette loolu nag lañ ci jot a def mu ngi doon 14 millions 580 mille 14 millions 580 mille toilettes yi nag li ci ëpp benn bu nekk ñu ngi ko doon defaree. ci quatre cent mille francs loolu na ku ko dégg dana xaw a doy waar ndax benn toilette rek boo ko bëggoon a am ci prix normal da nga dépassé lu ëpp cinq cent mille wala minimum six cent mille waaye nag dañ cee dugal ab jaayante ndax maçon yi ko doon liggéey eh, dañoo wax rek nañ leen jox li mun mënta ñàkk li ci des ñoom ñu jaayante ko kon ñoom tamit ñu ngi leen di beral ak cant bu baax a baax. ci biir màggal gi tamit jëloon nañ ci ay nit comme niñ ko baaxoo def jamono ju nekk ñu jël ay nit di leen faj ci biir màggal gi dañ ko yokkoon jëloon nañ ci lu tolloog 63 personnes. juróom benn fukki nag ñett lañ ci jot a def ci xaalis mi ngi doon cinq 4 millions 735 mille cent millions cinq mille maanaam ñi nga xam ne ñoo ñoom lañ dimbali ci màggal gi ci wàllu luy tax seen kër ñu mën faa màggal mu ngi doon 63 personnes ñu ngi ci def 4 millions 735 mille 4 4 millions 735 mille 4 millions 735 mille jëloon nañ tamit ñoo xam ne dañu leen faj ci biir màggal gi comme ni ñu ko daan defe ci weer yëpp waaye màggal gi dañoo yokkoon lim bi jëloon nañ lu tolloog 53 personnes juróom ñett fukki nit juróom fukki nit ak ñett lañ ci jot a def ci xaalis mi ngi doon 5 millions million mille 5 millions 392 mille am na ñaari bërëb yoo xam ne nii ñi nga xam ne seen caabi féete nañ ne seen ginnaaw moom lañ ca def ndax màggal gi dégg nañ ci wax Cheikh Abdoul Ahad mu wax ne yowmal xiyaam amuti bis waaye jamono jan daan def màggal bu ñëwee ñëpp danañ yëg ne bis bii la bisu màggal gi moo waraloon ñu ne nañ gën a nemmeeku ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëb yooyu nga xam ne ci ay féetale leen ginnaaw muy prison bu Jurbel ak prison bu Mbàkke lañ fa jot a def ci xaalis buñ ko boolee ci def nañ fa yoon yónnee nañ fa ay nag yoo xam ne nii bis bi danañ ko mën a màggal ay basan ay eau de sewel ay madar ceeb ak dépasse boo xam ne dana leen mën a yore ñetti fan loolu bu buñ ko boolee mi ngi doon sept cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-un mille am na ay kuréel yoo xam ne tamit dañ leen doon jàppale kuréel yi genn gi ñu ngi yëngu ci wàllu xam-xam ci mbirum jàngaleem sëriñ bi bi ci des mi ngi yëngu ci ci mboolem ñi nga xam ne danañ réer seen bokk ci màggal gi rawatina ndaw ñi ñaari kuréel yooyu ñu ngi leen jàppale woon lu toll ci un million cinq cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quatre-vingt-dix mille buñ ci loolu tamit que sëriñ Tuubaa nga xam ne moo nekk Daaru Mannaan euh, sëriñ bi def na fa la fa war lépp def na fa tamit jàkka joo xam ne nii képp ku bëgg a julli da nga fa mën a jullee waaye dañoo bëggoon jegeel ñi nga xam ne ñoo nekk foofa ngir ñu mën a julli ci seen i biir nekk ñi nga xam ne am nañ gàntul dem fa donte amoon na ay sajaada ak yooyu waaye ñu ne woon nañ ci feeñal suñu yéene moo tax dugaloon nañ fa suñu loxo ci ay sajaada ak carax yoo xam ne mën sa koo waaje ak bitéel yoo xam ne da nga ko mën a raxasoo ak yu demee noonu loolu ñu ngi ci defoon trois cent soixante mille trois cent soixante mille am na tamit ay dund yoo xam ne dañ ko séddale woon ci màggal gi ci weeru màggal gi ñi ñi ci jot a bénéficié wu mi ngi toll ci soixante cinq personnes loolu lañ ci jot a def ci xaalis mooy trois cent trois millions trois cent soixante quinze mille trois millions trois cent soixante quinze mille daara yi itam jamono ji nekk commission sociale mi ngi ciy jëm li man donte Touba Ca Kanam wutal na ko ab commission boo xam ne moom la ñuy wax commission scientifique et culturelle waaye téewut commission di ci tàbbal loxoom jamonoy màggal nag dañuy laaj waa commission boobu lan ngeen gën a yittewoo jamono ren jii nag ñu waxoon ne ay basang lañ gën a yittewoo basang yooyu nag jamono ji nekk Cheikh Mamadou Mountakha dana ci joxe téeméeri basang ren jii tamit yeesalaat nañ ko lañ ca joxe ci basang lépp buñ ko doon natt ci xaalis mu ngi toll ci cinq million cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinq cent quatre mille cinq la ca jotoon jëfandiku ci ay daara ëpp na juróom-ñaar fukki daara daara yooyu nag dañ cee jiital daara yu mag yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci dëkk bi bokk na ci li nga xam ne moom lañ def ci màggal gi muy joxe nañ ci loo xam ne nature la lu mel ne ndox wala ceeb wala yu deme noonu séddale nañ ci lu tolloog cent cinquante euh, paquet ndox yu ndaw yi séddale nañ ci tamit lu tolloog trente six saaku ceeb vingt cinq kilos yi séddale nañ tamit cent quarante cinq litres diwlin séddale nañ ci vingt huit cartons savon séddale nañ ci ay basang yu ndaw ay basang yu mag lu tolloog ci fukk ak juróom séddale nañ ci tamit ay paan lu tolloog 86 séddale nañ ci ay basang yu ndaw yi ñuy jullee lu tolloog 124 séddale nañ ci tamit ay kilo suukar lu tolloog juróomi téeméeri kilo suukar 500 kilo suukar séddale nañ ci tamit ay eau de sevel lu tolloog 80 carton séddale nañ ci tamit saaku ceeb yu cinquante kilos yu tolloog 16 saaku ceeb séddale nañ ci tamit meew lu tolloog juróom benn saaku 6 saaku séddale nañ tamit ay carton masque ndax xam ngeen ni jamono ji yitte woon nañ ko lu tolloog ñaari carton masque kon séddale nañ ci lu ëpp 5000 masques séddale woon nañ tamit ay carton sel séddale woon nañ tamit ay carton madar carton sel yi mi ngi toll ci ñaar carton madar yi mi ngi toll ci mi ngi toll ci juróom-ñaar muy set kon bala ñoo ñëw ci li nga xam ne moom lañu def ci at mi yëpp ci wàllum taxawaayu ñi nga xam ne ñoo xaw ñoo wéradi ak ñi nga xam ne nii dañ doon bëgg ku leen jàppale ci wàllu dundin ak bis yi nga xam ne ah, def nañ ko ak li nga xam ne moom lañ baaxoo def ci weer wu nekk mu jëm ci suñu bokk yi nga xam ne ñoo ñu nekkal ci tool bi nga xam ne moom la sëriñ bëggoon koo nekkal muy alxuraan wala ñoo ñëw ci tënk bi ñu fàttalee ne itam commission sociale mbooleem li nga xam ne moom lay def jugewul ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy laaj murid yi par weer waaye mu ngi jugoon ci ab jaayante boo xam ne ginnaaw boo joxee sa ñaar téeméer ba noppi jaay seet la la yàlla mën loo ko di ko def di tàmbulee ci dërëm ba jëm ci ay milliards kon bu ñëwee ci li nga xam ne ni moom la commission sociale taxawu ci ñi wéradi ci at mi deux mille 2020 ñu ngi toll ci deux cent soixante deux personne deux cent soixante deux personne mooy ñaari téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak juróom-benn lu tax mu doon lim bii nag mooy li ma leen waxoon rek ci njëlbeen gi di tàmbalee ci juróom-benn weer yu njëkk yi mois de janvier bu mois de juillet wala sax mois de juin jëluñu ci ku tawat ndax tawat ji nga xam ne moo dëkk ci moo nekk ci réew mi te ñu wax ne jaxasoo lay lay bokk na ci li nga xam ne moo koy sabab kon liñ jot a def ci ñi nga xam ne dañoo wéradi eh, ak ñi nga xam ne moom lañ jot a def ci ay jënd ci ay ordonnance ci pharmacie yi nga xam ne moom lañ lëkkalool mu ngi doon dix neuf millions trois cent quatre vingt treize mille cinq cent dix neuf millions trois cent quatre vingt treize mille cinq cent fukki ñeent ak juróom-ñaar fukki junni ak juróom-benni junni ak juróom-ñaari téeméer li nga xam ne ñoom lañ jot a jàppale ci wàllu wàllug dund nga xam ne ñoom dañoo am jafe-jafe ci seen seeni kër loolu mu ngi toll ci 403 personnes ñeenti téeméeri nit ak ñett lañ ci jot a def ci xaalis moo doon 20 millions 639 mille 100 20 millions 639 mille 100. ñaar fukk millions yu toftal téeméeri junne ak ñaar fukk ak juróom ñaari junni ak juróom ñetti téeméer ak ñaar fukk li nga xam ne moom lañ baaxoo yóbbu ca jumaa ja ci weer wu nekk ci daare kaamil ji ñu fàttalee ne itam lii du loo xam ne nii ña nekk ca daare kaamil ñoo ko sàkku ci ñun waaye ñoom taxawaay yi nga xam ne moom war sëriñ bi ñoom maa ngi koy def ñoom itam euh, la leen war ci seeni kër ña ngi koy def waaye nag ñun ñoo gisoon ne kuy liggéeyal sëriñ bi boo ci boo ko jaaree ci alxuraan man ngaa rafet njortu ci ne da nga am ngërëmul sëriñ bi ndax sëriñ bi moo waxoon ne kat alxuraan mooy ab toolam kitaab yi kitaab kitaab bustaani kitaabullah ñi nga xam ne ñoom ñooy bénéfice wu ci loolu weer wu nekk ñu ngi toll ci fanweeri nit ak juróom-ñaar 37 personnes lañ ci jot a def ci at mii yëpp mi ngi doon 6 millions 240 mille 900 6 millions 249 mille 900 juróom benn million yu tuftal ñeent fukki junni ak juróom-ñetti junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk loolu nag weer wu dee ak la fay dem léeg-léeg mu doon cinq cent soixante cinq mil léeg-léeg mu doon cinq cent soixante dix mille léeg-léeg mu cinq cent ñi nga xam ne ñoo jot a bénéficié wu ci social bi nga xam ne moom la ñuy tuddee social ramadan ëpp na junni nit ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn prix de mille quatre cent soixante seize personnes liñ ci jot a def ci xaalis moo doon trente deux millions trois cent quatre vingt dix neuf mille trente deux millions trois cent quatre vingt dix neuf mille fanweeri millions ñaar. ak juróom-benn fukki junni ak eh, ak juróom-ñaar fukki junni ak juróom-ñett ak téeméer ak juróom-ñett fukk. li nga xam ne moom lañ jot a def ci social bi nga xam ne moo tudd social Korité li ci jot a bénéficié wu ci ay nit ñu ngi toll ci juróomi téeméer nit 500 personnes. li ñu ci a def ci xaalis mooy dix million sept cent soixante mille dix millions sept cent soixante mille mooy fukki millions ak téeméeri junni ak juróom fukk ak ñaar. ñi nga xam ne ñoo jër jëriñu ci social tabaski gi ci wàllu xaalis nga xam ne enveloppe bi nga xam ne mu cinquante mille la woon mu ngi doon deux cent quatre-vingt-sept personnes ñaar téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar lañ ci joto def ci xaalis mooy quatorze millions sept cent quatre-vingt mille quatorze millions sept cent quatre-vingt fukki millions ak ñeenti millions ak téeméeri junni ak juróom fukk ak juróom benn junni ñi nga xam ne ñoo jot a jariñu ci construction bi nga xam ne ñi ñoom lañuy defal ay dëkkuwaay ci quartier bee ñuy wax Tawfekh Bousso buñ boolee ñaar yi ak ñi nga xam ne nii ñoo ca des loolu lépp mu ngi toll ci dix kër lañ ca jot a def ci mooy trois millions deux cent quatre-vingt-six mille cent quarante trois millions deux cent quatre vingt mille neuf cent quarante social bi nga xam ne moom lañ doon def ci màggal gi di ko taxawoo ñi nga xam ne nii ñoo ko yayoo ña ca bën ña ci jot a bénéficié wu ci ay nit mi ngi toll ci ñaar téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñeent cent dix-neuf personnes lañ ci jot def ci xaalis mooy trente-sept trois cent cinquante six mille cent dix neuf trente sept sept millions trois cent cinquante six mille cent dix neuf fanweeri million ak juróom-ñaar ak juróom-benn juróom-ñaar fukki junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak fukki fifteen ak juróom-ñeent kon lii buñ xoolee li nga xam ne moom ñoo jotal jariñi ci ay nit ci at mi ci commission sociale ci wàllu koppar moo xam ci faj la aju moo xam ci wàllu dund la aju boo ci génnee ñi nga xam ne ni wax ay yére lañ leen jox kon li jot a bénéficié wu ci commission sociale nga xam ne commission sociale jot na leen a jëflanteeg ñoom ëpp na ñetti junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent prix de trois cent quatre vingt personnes boo ko boolee nag ak ñaar téeméeri jaboot ñaari junni njaboot ak ñaar téeméer ak juróom fukk yi nga xam ne ñoom lañ séddale woon yëre yi day mel ne commission sociale ñi mu jot a taxawu ci atum deux mille ci ay nit mi ngi toll ci cinq mille cent cent cinq 334 5334 jot naa taxawu juróomi junni nit ak ñetti téeméeri nit ak fanweeri nit ak ñeent li nga xam ne moom la commission sociale jot a def ci at mi yëpp ci wàllum xaalis mi ngi doon cent quarante 144 millions 855 mille 559 144 millions 855 mille 559 téeméeri millions ak ñeent fukk ak ñeent fukki million ak ñeenti million ak téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak benn junni ak téeméer ak fukki fifteen ak juróom-ñeent mooy li nga xam ne commission sociale liggéey na ko ci deux mille vingt loolu nag moo jëm ci wàllu xaalis ak yu demee noonu li nga xam ne moom la jot a ci wàllum nature lu mel ne ceeb ak ay suukar ak yooyu séddale nañ ci saaku ceeb yi cinquante kilos yi lu tolloog neuf cent quatre-vingt-dix-neuf saaku ceeb junni saaku ceeb yu manqué benn yu cinquante kilos jot nañoo séddale tamit saaku ceeb vingt cinq kilos yu du tolloog mille deux cent cinquante six jot nañoo séddale trois cent soixante neuf kilos café jot nañoo séddale onze cartons tàndarma jot nañoo séddale fukki saaku dugub jot nañoo séddale sept cent sept mille trois cent quarante kilos suukar juróom-ñaari junniy kilos suukar ak ñetti téeméer ak ñeent fukk jot nañoo séddale six saakuy meew jot nañoo séddale quatre vingt dix neuf carton saabu jot nañoo séddale trois cent quatre vingt seize carton madar jot nañoo séddale six cent dix-sept carton eau de Javel jot nañoo séddale cinq cent quinze bassin yu mag jot nañoo séddale cent vingt-quatre bassin yu ndaw jot nañoo séddale quatre-vingt-six panne jot nañoo séddale sept carton masque mu toll ci cinq mille masques jot nañoo séddale quarante-deux flacons alcocel jot nañoo séddale lu toll ci juróom fukki seize fauteuil roulant ak juróom benn yi nga xam ne moom lañ doon jox suñu mbokk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci wàllu tànk ñu ko koy wax handicapé 56 fauteuil roulant jot nañoo séddale tamit 39 beek yi mooy beek yi nga xam ne moom la ñuy doxee ñi nga xam ne nii seen tànk am na jafe-jafe jot nañoo séddale tamit cinq kaan maanaam yat yooyu nga xam ne mag ñi moom la yore ñenn ñi di ko yor ngir dundal sunna ñenn ñi di ko yor ngir jafe-jafe tànk jot nañoo séddale tamit lu ëpp fukki junni yëre ak ñeenti yëre ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent prix de 13 139 000 vêtements pièces de vêtements jot nañoo séddale tamit cent cinquante paquet ndox jot nañoo seddale mille cinq cent quarante neuf litres diw junniy litres diw ak juróom fukk ak euh, juróom litre téeméer junniy litres diw ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent moom lañ séddale ci année deux mille vingt bi léegi nag lii buñ xoolee buñ xoolee li nga xam ne moom lañ moom lañ fekk ci liggéey bi muy deux mille dix huit bi nga kii at mi nga xam ne nii. ki ñu wuutu moom la fi mujj def moom ba muy tàmbali mi ngi tàmbali woon ci sero ndax ba muy tàmbali fekku fi dara waaye ci ak njàmbaar ak góorgóorlam fexe na ba lam daan def lu mu am ci at mi bu déwénee da koy am ñaaram moo tax 2018 lim mujj lim am ci at mi yëpp lim jot a liggéey ci at mi mi ngi doon 13 millions 392 mille 13 millions 392 mille ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kàddu gi nag ñu ak moom liggéey bi mu ciy def loolu bu rafet ànd ko waa commission sociale gépp bi nga xamee ne jënkani nañu mbir mi 2019 li ñu jot a def ci 2019 bi yëpp mu ngi toll ci 35 millions fanweeri millions ak juróom lañ liggéey ci 2019 bi yëpp loolu nag boo seetee ak liñ liggéey ci eh, année 2020 bi day mel ne am na ak soree gu gu yaatoo yaatu ndax liñ liggéey ci année 2020 bi mooy 144 millions 850 cinq cinq mille 559 loolu nag li nga ciy gisee mooy li ñuy wax ne mbooloo rek mooy doole. kon liggéey bi du liggéeyub kenn waaye liggéeyub équipe la kon waa commission sociale yi gépp ñu ngi leen di sant bu baax a baax kon bu ñëwee ci cas yi nga xam ne moo fi nekk jamono jii ñi xam ne dañoo wéradi te di ko sàkku ci commission sociale Touba ci kanam ñu ngi toll ci trois cent quatre-vingts téeméeri nit ak juróom fukk ñi nga xam ne dañuy sàkku ab ñu ngi toll ci cinquante-trois personnes juróom fukki juróom nit ak ñett ñi nga xam ne dañuy sàkku bërëbu suturlukaay ay toilettes ñu ngi toll ci ñeent fukk juróom quarante-cinq personnes ñi nga xam ne ay néeg la ñuy sàkku wala ab kër dañuy sàkku ñu ngi toll ci cent deux personnes téeméeri nit ak benn ak ñaar ñi nga xam ne nii li ñuy sàkku dafa wuute ñenn ñi ñi ngi sàkku ab fonds bu ñu defar ñenn ñi ngi sàkku ab xadd ak yeneen ñi ngi toll ci trente sept personnes fanweeri nit ak juróom-ñaar compte commission sociale jamono ji nga xam ne maa ngi wax ak yéen la ca nekk matatut matatut cinquante mille francs ndax li ci nekkoon lépp mi ngi doonoon six cent cinquante quatre mille ñu toll ñu dolliwaatoon ca cinquante mille waaye nag dañ caa jëlewaat cinq cent quatre mille yi nga xam ne nii moo baaxoo dem ci daare kaamil kon la fa des ci compte social mëtatut cinquante mil ci koo xam ne dépassé nga plus de cent quarante quatre millions et poussière kon loolu day wane ne kon ñun ay lantinoor lañ rek lépp lu fi waay jaarale mu jàll ci ñi nga xam ne ñoo ko yayoo jamono ji nga xam ne maa ngi wax li nekk ci Orange Money bu commission sociale te mooy 77 914 26 68 mu ngi doon deux cent vingt huit mille cent deux cent vingt huit mille cent li nga xam ne moo fa nekk ci compte Wave bi mi ngi doon cent douze mille neuf cent quatre vingt quinze cent douze mille neuf cent quatre vingt kon loolu moo nekk ci compte social ci Orange bi ak Wave bi ak compte banque bi kon ñu ngi ñaanaat suñu bokk yi ñu gën a baral seeni jéego ndax commission sociale moom ñi ciy jaayante xëy na lim bi xaw naa néew tuuti loolu bu ñëwee ci jafe-jafe yi nga xam ne ah, commission bi am na ko dana ci ñëw bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne nii commission bi da ko am te képp kuy seetaan vidéo bi te nga mën cee jàpp nga jàpp ci ndax lépp ab jaayante la mooy dañoo amul oto boo xam ne moom la ñuy déplacé di seeti malade ak di taxawu ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe mooy li ñuy wax la manque de voiture de liaison bokk na ci li ñu li ñu xaw a jafe tamit mooy manque de fonds mooy koppar yi ni war a bëree bëreewul noonu ndax commission yi ci Kanam yu bëri am nañ budget waaye commission sociale moom ci jaayante la aju kon ñu ngi sàkku ci bokki taalibe yi ñu gën a yokk seen loxo ci wàll googu bokk na ci jafe-jafe am tamit mooy manque de partenaires au niveau de structures yi jàppale gi nga xam ne ni des na ci bërëbu fajukaay yi loolu nag du yëpp waaye ñu ngi ciy sant lu mel ne Matlaboul Fawzayni ak euh, hôpital Ndamatou ak jéemul ndax seen service officiel bi léeg-léeg ñu jàppale ñu ci cas yi nga xam ne dañ koy am bokk na ci jafe-jafe yéen am tamit mooy magasin boo ne dañ ci mën a denc bagage yi nga xam ne social dana ko am bokk na ci jafe-jafe yéen am tamit mooy manque de communication bi maanaam yaatal gi dafa xaw a des loolu nag ñu ngi ci soññi ñëpp waaye rawatina communication bi nga xam ne commission communication bi nekk ci biir Touba ci kanam bokk na ci li jafe-jafe bi am tamit kaa yi dajaloo gën fii dajaloo te loolu lépp li ko waral mooy manque ay koppar loolu tamit ñu ngi ci bokk na ci jafe-jafe yéen am bokk na ci jafe-jafe yéen am tamit mooy ñi nga xam ne ñoo war a def visite du terrain nga xam ne ñoo war a wàcc ci ci terrain bi dem ci ñi nga xam ne ñoo ajowoo léeg tamit dañ ci am jafe-jafe ci lim boo xam ne nii danañu mën a ànd ak ñun ndax ñu koy def ñëpp kenn fayu leen waaye dañ koy jaayante ngi jëm sëriñ bi loolu tamit dana ci am kon bokk na ci jafe bokk na ci jafe yi tamit mooy ñi nga xam ne ñooy participer ci social bi dañoo néew par rapport ak ñi nga xam ne ñooy joxe 1000 francs par boo doon xool ñiy joxe 1000 francs par weer dee téeméer ak ñiy joxe social bi juróomi nit lañu cay doon kon nag tamit ñoo ngi gën a ñaaxaat suñu bokk taalib yi nga xam ne sañ leen a sañ leen a ñaax ñu mën cee jàpp bu baax a baax bokk na ci li nga xam ni moom la ñuy dénkaane di ko ñaan bu fekkee ne mën nañ coo jàppale muy ñett yi wala ñeent yi mooy ku ñu mën a jàppale ci oto boo xam ne danañ ci mën a déplacé wu di seeti ñi nga xam ne ñoo am magasin boo xam ne danañ ci mën a denc jumtukaay yi ak jàppale ñu tamit ba communication bi ñu gën koo booster ci réseaux sociaux yi ak ci télé yi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bi ak jàppale ñu ba nga xam ne nii fonds yi nga xam ne dañ koy am dana gën a mën a yokk kon loolu mooy li nga xam ne moo aju ci commission bi li ci des rek mooy di santaat mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi ciy dugal seen loxo ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew rawatina mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk diaspora yi bàyyiwuñu kenn ñu kenn sant ñëpp di leen jaajëfal di jaajëfal mboolem commission sociale mboolem ñi ñu ko àndal ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant mboolem kilifa Touba ci kanam yi ñi nga xam ne noonu laa tàmbalee woon bi may lim di sant comité directeur bi ak bureau exécutif ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi ciy jàpp ñi jege ak ñu sori ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp te dëkk ci dëkk bi moo xam ni moo xam ñii ay commerçant moo xam ñu mën a doon rek ñu ngi leen di sant bu baax te ñaan sëriñ bi fayal leen boppam di sant itam lenn ci partenaires yi nga xam ne danañu ci bis yi nii faral di am rawatina ci 2020 bi kon ñu ngi sant bokk taalibe bi yëpp te leen ñaaxaat ñi nga xam ne sañ nañ leen a ñaax ñu gën a jàpp ci commission bii nga xam ne nii mooy jaamu yàlla ci biir jaam yàlla yi te bokk na ci bërëb yi nga xam ne nii jortu naa ne mën nañ cee dàkkee ngërëmul yàlla ndax li suñu boroom tudd julli nga xam ne julli mooy jaamu yàlla gi gën a màgg baraana fu mu ko tuddee rek euh, joxe sa alal ci yoonu yàlla la koy teg kon nag rawante baax na waaye yaakaar naa rawante bii ku ci rawante mën ngaa am ngërëmul yàlla mën ngaa am ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngaa am ngërëmul Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee te lool rek moo mat a dàkk ñi ngi ñi ngi sant waxaat tamit ne euh, Tuubaa ci kanam ni mu baaxoo def mooy at mu nekk dañuy natt li nga xam ne jot nañ koo def xayma ko boo ko defee mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite woon commission yi ñoom tamit jébbalewaat seen i ndombal tànk ñu seet ña leen doyaat ñu dénkal leen ko kon man mi nga xam ne maa nekk ci kàddu gi jiite woon commission bi nga xam ne moo mooy commission sociale ndombal tànk li ñu ma dénkoon tegaat naa ko ci taabal ji di ñaan mbooloo mi seetaat ka nga xam ne doy na leen ñu jox ko liggéey bi mu wëyal ndax lii responsabilité la waaye du privilège kon ñoo ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ñu gën a jàppaat ci rawante bii nga xam ne mooy dëgg-dëgg rawante bi nga xam ne ko ca raw sa adduna ak sa àllaaxira mën naa baax ulaayka yusaarixuuna fil xayraat hum la saabixuun asalaamaaleykum wa rahmatullah